man daal li mu mën a wax fii ñu toll euh, amul lu gàllankoor Ousmane Sonko. pour mu hmm. doon candidat fii ñu toll ndax fii mu ne dama ci joxe firnde xam nga nee nañu maanaam euh, dindi nañ ko ci liste électorale yi loolu sax wóoraguma waaye euh, mu ngi taafantoo daal ni du électeur li ñuy sukkandiku pour wax loolu moo di décision contumace bi te maa ngi ko waxoon dama ci dellu rek décision contumace bi naax saay na ba ñu jàppee Ousmane Sonko. léegi ñu ngi wax ay notification euh, maanaam euh, firndeel ni dindi nañ ko ci liste électorale yi su fekkee ni jox nañ ko ko fii mu ne jox boobu mel na ni amul solo autrement dit la notification est sans objet li tax may wax loolu moo di boo jëlee comme cëslaay maanaam daan biñ ko daan ci mbirum aji Sarr léegi fekk jàppoo ko mu ngi ci lu tubaab di wax état de contumace mm-hmm. fekk jàppoo ko ndax état de contumace mooy bañ la daanee euh, bañ lay atte nekkuloo fa boo léegi kenn jàppu la maanaam daal yaa ngi ci sa coobare bopp kenn jàppagu la feek mu ngi woon ci loolu maanaam nguur gi mën na euh, taafantoo état de contumace pour ni ko defe na article 41 du code électoral nee na yaa ngi en état de contumace notifié naa la ko kon nag léegi mënatoo doon électeur loolu fekk jàppuñu ko maanaam version gouvernement bi mën nañ ci jafandu waaye bañ ko jàppee ci la loolu naax saay maanaam la contumace est anéantie léegi nag mënatoo taafantoo maanaam décision boo xam ni naax saay na bëgg ni décision bi naax saay kat hmm. dana tax ma man fexe Ousmane Sonko du doon candidat d'accord léegi pro euh, professeur bu ñu delluwaatee ci gannaaw bañ koy àtte hmm. nee nañ gisuñu ko hmm. te ñëpp ngi doon seetaan ci télé bi mu nekkoon këram Ziguinchor am ay jaamaarloo ay échauffourées yu fa amoon waaw kooku noonu ndax yoon warul woon dem teg ci moom loxo indi ko ci tribunal bi l'autre chose mooy ba ñuy rendre décision bi fekk na jàpp nañ ko Koungheul ba barricade këram te terewul juge bi nee na dañ ko daan par contumace te bañ koy wax contumace boobu ñu ngi ko encercler fii këram finalement contumace daal mooy euh, bañ lay attee teewuloo teewuloo wala xamuñu koo nekk non non non mën nañ xam de toute façon mun nañ xam foo nekk mm-hmm. yoon bu ñu xamee foo nekk nguur gi am na sañ-sañ ak doole ju la mën jëlee ci bien sûr pour ñu atte la juge bi sax ci boppam bu fekkee ni xam na fi nga ne sañ na ni dem leen jëlali ma ko mm-hmm.